bi nag ñu ko déroulé ci euh, euh, quelques régions Thiès bokk ci ñu mën cee lim Dakar Kaolack Saint-Louis ak Ziguinchor euh, lañ ci mëna japp fi ci région Thiès moy am nañ lim bu takku le ëpp téeméer ak juróom benn fukki entreprise jappalé nañ leen fi ci Thiès jappalé bi nak du né seulement ñëw former leen bay leen déedéet dañ leen former ñaari yoon mais ginnaaw entreprise bu nek ñu toftal benn coach li ñuy wooyee benn coach maanaam ka nga xamante ne day ñëw ci entreprise bi ñaari yoon ci weer bi ndax xool ndax la nga xamante ne jàngal nañ ko ndax mi ngi koy appliquer ndax mi ngi jëfandikoo jumtukaay biñ ko jox pour que mu mën a tenir comptabilité ndax la nga xamante ne entreprise am bi yëpp soxla na ko mu ngi ciy tegu donc loolu la ñuy wooyee coaching te programme bi nag coaching la woon ñu jàppale leen pendant juróom benn weer euh, xool ndax fa ñu nekkoon jóge nañ fa une série de restitutions, des travaux dans les euh, six régions qui ont été impliquées et les 600 personnes qui ont pu être formées. À Thiès, c'est près de 140 entrepreneurs qui ont été euh, formés sur euh, Thiès, Tiwawan, Bourg, dans la stratégie SMI Business Loop. Création de l'emploi, la création de la richesse, la première solution, c'est les entreprises existantes qui doivent être accompagnés, renforcés pour être plus compétitifs. La formation a démontré que non seulement une, euh, ce postulat est une réalité, mais que les démonstrations est effective. L'objectif, c'est de poursuivre, d'élargir